doo dem toog ne waaw am yow doomi sëñ bi nga kaay dem bakk mbakk mu ñu inco nga def bind fii boo xoolee li fi nekk dañu xam lu mu bul jël inco ji publicité la jërëjëf euh, ñu am mbégte taxaw ak Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacké di jëwriñu liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Bachir woote ci daaray Hisnul Abrar ja nekk ca Thiel euh, tey jii di départ bi di alterné yamoo ak ñetti fan ci weeru baraxlu dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru mars sëñ Modou Mamoune liggéey boobu nan la demee. waaw El Hadj euh, liggéey bi day liggéey boo xamante ne bii sëriñ bi moo ko santaane euh, te di ci woo ñëpp euh, liggéey bi di barab boo xam ne ku ne xam na ne li ko njëkk jukki mooy jaamu yàlla ak yar njaboot gi ndax foofu la jamono toll muy barab boo xam ne. bi mu ko toppatoo jaar ko fi ko fi mu ko war a jaar ba nga xam ne bu doonub sénégalais képp te du sëriñ bi it yoon may ko ko mu war caa jot mu jaar ca ba jot ci ñu ci leeral ne it jëlun suufu kenn suuf la soo xam ne néewul woon ci moomeelu kenn <coughs> ki ko sañ joxe di gouvernement jox ko ko teg ko ci kayit yu leer nañ loolu it mu di ci sant yàlla di ci santit fi mu jaar fépp ak ñi ci liggéey ak moom waaye bi loolu noppee alaaj Fallou muy barab boo xam ne nag defe naa sëriñ bee ko jox tur wi yow xam nga tur wi waaw muy Taysirul Asir muy barab boo xam ne bi ko sëriñ bi wutee ba noppi fas fa yéene jaamu yàlla ànd kook taalibe yi mu sant ko nag cheikh si cheikh si it ñoom ñëpp kenn ku nekk mobilisé pour ñëw pour fas yéene jàpp ci liggéey bi te jublu ci sàkku ci ngërëmul sëriñ Touba loolu it alaaj fàllu di loo xamante ne bi defe naa ni moom la yoon wi desee mooy wut barab yoo xam ne des na ca mën a yar fere yi ndax ni jamono tëddoo defe naa looloo yi yittey sëñ bi ji ci njëkk bi mu amee it taxawaay bi ci war xarit yi bokk yi wëllëre yi seex si kenn ku nekk mobiliser nga sa kàttan ndax moom dafa di koo xam ne nit ñi sawaroon nañ ci déggoon ko ci lu mel nii ba kenn ku ne feeñal ca sa yéene defe naa ne yaa ngi koy wax sax muy loo xamante ni bii lu am solo la euh, kon noo ngi ciy sant yàlla ci bim nu ci cëralee ne jëwriñam la nu mu jiital nu ci ngir nu ànd kook yéen waaye nag liggéey bi yéen la nun danoo ne ci seen kanam ne ci seen gannaaw rek di xool waaye li ci rafet lépp yéen a gis naa seeni taxawaay muy loo xamante ni bii lu sëriñ bi rafetlu la maag ñi ma ko àndal ñëpp nag muy mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal

waaw euh, jéem nañu it ci wàllu matuwaay bu kër docteur muy wàllu matériel muy wàllu dund muy wàllu lépp loo xam ne doomu aadama dana ko soxlawoo nun ci farlu taalibe yi ak sëriñ bi ci boppam fexe nañ ba loolu lépp nekk fa waaw bu soobee yàlla euh, mënta doonu euh, kii ay ab gor la nag ci itteey sëriñ bi ak ñim ko teg ci seeni loxo fexe nañ ba lu fa war a nekk dana fa nekk defe naa ne kenn du fa tumuraanke incha allah waaw waaw képp koo xam ne bëgg ngaa dem ci liggéey bi mën ngaa woo euh, sëñ Mamoun Mbacke Balla Dior ci 77 366 81 35 wala nga woo El Hadj Falilou ci 77 643 17 87. am na yeneen i jëwriñ yoo xam ne it ngi ci waaye ku woote ci yii dinañ la tegtal ba foo bëgg a dem ci liggéey bu sowal da nga dem. waaw noo ngi tàllal ñëpp loxo nag maanaam waxuñu ko ngir euh, du du du taalibe bi mu ummatu islam bi yëpp la waaw ñun ñëpp ko bokk ndax fu ñuy liggéeyal yàlla rek la fu ñuy liggéeyal yàlla nag ñëpp lañ ciy woo